ngir ngeen mën a suñu programme yu am solo yooyu daw leen abonné ci chaîne bi te bañ a fàtte activer cloche bi pour benn leen mën a ram Jazboul Mouride au service de Mame Cheikh Ibrahima Fall ci li sëriñ bi bëgg te yéene ñu ko ba nu am ko jërëjëf Mbàkke sëriñ bi nag doon na wax ni ndigal li nga ko joxoon ci weeru koor wi ba nu wari nga joxoon ko ndigalul ni ko waree leen foofa nee ndax dañ koy wéyal ci tabaski bi wala mbàkke nu ñuy def loolu la waxoon ni mbàkke ni bu ngeen demee jottali li ma ko sëriñ bi. ginnaaw kàddu sëriñ bi Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom sëriñ Bassirou xalifa général des Mourides na bu baax a baax ci waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall ci jëf ju kawe ji nga xam ne defati nañ ko te nga xam ne duñ jóg ci di ko def. waaw sëñ Mountakha nee na sëñ Saliou loolu sëñ am di dama ko waxoon na ko wéyal kon julli gi foofu la.